والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين أما بعد nu dégg àndaat ak yéen ci jataayu alxuraan bi nu baaxoo àllarba ju nekk ci waxtu wi mu jëm ci téereb sunu borom bi subhaanahu wa taala nu war a tàmbulee tey jii ci fi biyuutin adina allahu an turfaa wa yudkara fiha ismu audu billahi min alshaytani alrajim في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين nabiyina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi ajmain wa man tabiahum bi ixsaanin wa imaanin ila yawmi ddin amma baad sunu boroom subhaanahu wa taala joxe na niral muy niral boo xam ne rëy na lool ci leeram gi nga xam ne mooy alquran leeram gi nga xam ne mooy alwaxyu mu gën a yaatu ndax waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jamu firee alquran mën a tàbbi ci biir leer googu ci xolub ku gëm yàlla na muy mel sunu boroom subhaanahu wa taala joxe na ci niral mu mel ne leer googu daa soxla ñu xam ku koy wër fan ngay dem ndax lu nekk nag soo ko bëggee am am na foo koy jëlee xam naa sax ci lu gën a jege lii tudd courant yi nga xam ne day jox kër gi leer ne bu ñu taalee kër gi day daal di leer ku ko bëggoon a am ndax da ngay dem ca marché ba ca jaba ah ku ko bëggoon a am ndax da ngay dem daral fan ngay dem ah ah Senelec ngay dem lii nga xam ne mooy jumtukaay yi ñuy jokkoo ku bëggoon ñu xëccal la ko sa kër na ngaa bëgg léegi di jokkoo ne ñëpp kër gi am jumtukaay boo xam ne ku bëgg a jot waa kër gi jot leen ci waa kër gi itam bu ñu bëggee jot man caa dellu moom itam ku ko soxla woon fooy dem Sonatel ngay dem washim buruqal maali fi maxaayiliha li maa jubloo wax ne lu nekk rek nit ñi xam nañ xel ne lu nekk rek am na barab boo xam ne boo soxlaa loola foofa ngay dem suñ boroom subhaanahu wa taala leeram gu rëy gii muy leerug alquran leeram gu rëy gii nga xam ne mooy leerug sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy leer goo xam ne moo gën a mat leer gi ma tudd léegi ndax bu dee leer googa léegi-léeg sax nga ñàkk ko léeg-léeg nga ñàkk ko léeg-léeg sax boo amul nga xam ne xëy na sa loxo jotul sa ginnaaw doo ko mën a am doo ko mën a am beneen bi itam boo ko amee ba noppi itam da ngay wéy di ko fay waaye bu dee leer gii moom ci wàllu mat ba noppi ki koy joxe itam du la ci laaj ak pay mboolem ñi ko daan joxe kenn ku ci laaju pay néew ci maanaam leer gii may wax nii boo ko tàmbalee ci nuuxin da ngay ñëw suratu shuara fekk muy wax naar wa ma asalukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin nga dem ca huudin ma topp ca nuuxin ca na yàlla toftalee foofa moom itam kàddu googu la waxaat nga dem ca saalix moom itam kàddu googu la wax nga dem ca luutin kàddu googu la wax nga dem ca shuaybu kàddu googu la wax nga ñëw ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom itam kàddu googi la wax mooy leer gii nii dañ koy joxe noonu waaye duñ ci laaj ak pay bu dee leerug àddina nag ku ko bëgg a indi sa kër moom faaw am loo ah am loo fay te itam da nga koy indi ba noppiwul ba di ko di fay bu dee lii nag moom buñ la koy jox ki la koy jox du la ci laajug pay sañu ko ndax nuurul laa la leer gi leerug suñu borom yàlla la te it du leer goo xam ne kenn mën na koo fay. kenn mënu koo fay maanaam mën nga koo jéem a fay nag waaye mënu koo fay yuriduna moo fi nekk li yutfi'u da nga ko jéem a bëgg a fay waaye doo ko man bu doon làmp buy tàkk ci kër gi te neexu la mën nga koo fay wala sax nga far wekki piil ba far benn yoon waaye leer gi moom suñu borom yàlla fa mu ko denc fa mu ko denc daa sori lool ba bët mënu koo gis muy ab xol te xol ba sax bu yàlla dogaloon nga gis ko itam na ca leer ga nekke doo ko mën a jël suñu borom subhaanahu wa taala kon mi ngi nuy xibaar leer gu rëy gii nga xam ne moom la doon joxe niral te jotoon caa leeral lañ ca mën a leeral ci àllar ba jële jàll fan lañ koy fekk mu ne fii bu yuutiin leer googu des na ko fekk ci ay néeg ay néeg yan mu ne néeg yoo xam ne yàlla ci boppam moo digle ñu war koo tabax te buñ ko tabaxee mooy yëkkati nañ ko wa id yarfau ibrahimu alqawaida min albeyti wa ismail maanaa mooy jàkke yi ay néeg la yoo xam ne sunu borom yàlla moo joxe ndigal ci ñu war koo tabax fii buyutin adina allahu an turfa néeg yoo xam ne yàlla sunu boroom subhanahu wa taala moo joxe ndigal ci ñu war koo yëkkati binaa an tabax ko buñ ko tabaxee ba noppi yàlla moo joxe mana dundiin wa mana ku bëgg a dundal barab ba naka nga koy dundalee ndax ñu baree baree bari bunt boobu duñ ci bàyyi xel dañoo xamul ne suñu borom yàlla ni mu joxee ndigal ci ñu tabax jàkka yi noonu itam la santaane wax leeral jàkka yooyee nga xam ne ay néegam la lu ñu fa war a def ak lu ñu fa war a nekk ak ñan ñoo ko mën a dundal sax taamir gi nga xam ne moom bukkut ak a taamirul xissi ndax jàkka des na ko taamir ñaari xeeti taamir a taamir al xissi mooy ni ngeen gisee nii ñuy tabax nii tabax ko bam yëkkati ko lool am taar lool loolu mooy a taamirul xissi am na geneen xeetu taamir gu ñuy wax a taamir al maanawi la bu dee a taamirul xissi suñu boroom yàlla ngay rëbbu ña nga xam ne ñoom duñ jubuwu leen dañ koy daaneel ñooña boroom baa ngay wax naan kenn dàqu leen tooñ ñi nga xam ne ñaar yëpp sax maanaam ñoom dañuy tere ku ko taamir taamir xissi ba noppi di di ko di di di di di di di di daaneel jàkka jafar benn yoon ñoom borom bi neen kenn dàqu leen tooñ ñooñu wa man azlamu mimman manaa masajid allahi ay yudkara fi asmu ba noppi wa saa fi xaraabiha fi xaraabiha jooju mën naa jëlaale ñaari xeeti taxrib yëpp mooy at alxaraabul maanawi jàkka ji bu fi kenn tafsir jàkka ji bu fi kenn qiyaam loolu xaraab maanawi la kooku yasaa fi xaraabiha ndax yooyu muy wax naan bu ko fi kenn def daa bokk ci yi dundal jàkk daa bokk ci yi nga xam ne jàkka dañ ko ko war a dundalee moo tax léeg-léeg ngis jullit boo xam ndeysaan ak ñàkk xamam mën naa am lu muy tere ci jàkka te fekk loolee muy tere ci jàkka ak di gàllankoor nit ñi ngir ñu bañ ko faa def loola daa bokk ci liy dundal jàkk wala sax mu am ku muy tere jàkka wala am ñu muy tere jàkka ñoo xam ne ñooña dëgg sax ñoo mën a dundal jàkk mooy mooy ña nga xam ne ñoom ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon dunde noona la ñuy dunde nam daan jullee itam noona la ñuy jullee déggu leen fi bataay yi ñoo xam dañ naan bu fi kenn aj ah luy loolu lii mooy aj ca ñoom ca ñoom lii mooy aj dégg naa fi jàkka joo xam ne ak góor day wax ne bu fi kenn aj waaw maanaam loolu mooy bu fi kenn jëfe sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku sax mën naa am ndeysaan day ko bëgg lu baax rek ndeysaan te xamut dëgg-dëgg yi fi nu mu tëddee ci bëree bëri man noonu rek foofu rek laa leen di yóbbu dañuy ay nit ñu ndeysaan bëgg lu baax waaye fekk rek maanaam jànguñu woon ba ñuy doon gone te it jàpp nañ ne xëy na lii nangam ak nangam waaye loola du doon aw lay sa digganteeg sa borom subhaanahu wa taala ndax dangaa waroon dem jàngi ba xàmmee lan lañu war a def ak lu ñu warta def am na ñoo xam ne ña ngay taxrib jàkka ñaari xeeti taxrib yépp bu ci nekk rek bu doy waar la jàkka joo xam ne dañ koo tabax ba noppi nga ne faw ñu ñu dindi ko maa ngi fàttaliku ñaar ñoo xam ne dañoo jëloon aw semmiñ yaakaar naa maanaa jàkka juñ tabax fenn ñu wax ne waruñu ko faa tabax nga xam ne ñoom dañoo ñu ngi fas yéene koo daaneel te maanaam du du du lu ñuy kii ñoom ñoom dañoo lii may wax dañ ko def maanaam ñoom dañoo yëkkati sémmiñoo dóor ndeysaan rahmatullahi alayhi damay bañ a jaar ci tur yi muy fees lool ndax ñooña dañ leen daa am fu ñu mujj moo tax ba mu ko déggee am na koo xam ne mu ko déggee dana yee ñooñu day am nañ jafe-jafe daane rawat naa ña ña jël seen sémmiñ ñoom dóor ñaar ñooñu ñëpp seen mujj dund su ma ko waxee mën na am sax ma mu far far leer benn yoon waaye li yàlla sa borom di jeexale laaya ji mooy lan ulaika ma kaana lahum an yadxuluha illa xaaifina la ma ci itte mooy lahum fi dunia xis loolu moo leen dal far ñaar ñëpp loolu leen dal ndax néeg bi du néegub sàmba du néegub demba néeg bi néegub yàlla la néeg bi néegub yàlla la koo xam ne jug na jëm ca daa mel ne ku jug jëm ci suñu borom subhanahu wa taala day mel ne kuy xeex ak suñu borom subhanahu wa taala ndax lu tax néeg bi yàlla moo santaane ñu tabax ko mooy ñu yëkkati ko fii buyuutin adina allahu an turfa da ngeen léegi ma jàng fii buyuutin riwaayatu shu'ba an an aasim xaalun tam loolu lay jàng ak ñeneen fii biyuut ci ay néeg mooy ay jàkka yoo xam ne adina allah yàlla moo joxe ndigal an turfaa ñu lan ko ñu tabax ko mooy ñu yëkkati ko kon kii tabax jàkka na xam ne mi ngi jëfe ndigalul suñu boroom subhaanahu wa taala te itam la ca la cay juddoo ci tiyaaba yàlla rek ko nga xam sëñ bi tabax jàkka ay nit nekk ci biir di tudd yàlla di jàng alxuraan di julli loolu sëñ bi loo tut tut tut bu yàlla nangulee ka ko def dana rëy lool waaye itam wa yuzkara fiiha ismu suñu borom yàlla moo digle ñuy tudd ci biir néeg yooyu fiiha mi ngi dellu ci buyut yooyu moo santaane ñu fay tudd ay turam ndax ismu nakira la naam waaye dañ ko laafal damir su ko defee kon day jëlaale mbooleem tur yàlla yépp suñu borom subhaanahu wa taala joxe na ndigal ñuy tudd turam wala ay turam di ko mu amuy amuy asmaa ul xusna am na ñu ko wax ci worom xam-xam yi am ñu ne yàlla daa tudd ismuhu fii waaye gën naa yaatu ibnu jarir at-tabari ne na ma yutla fiha kitaabu mooy ñu fay jàng yarhamukallah ñu fay jàng téeréem bi ñu fay jàng téeréem bi muy ñuy jàng ca biir jàkka ja téeréb sunu borom bi subhanahu wa taala li anna tilawata kitaabillah min maani dhikrillah loolu la ibnu jarir at-tabari wax nee na di jàng téereb suñu borom yàlla bi day duggaale ci maanaam zikrullah mooy tudd suñu borom subhanahu wa taala jàkka xamoo ne buñ ko dundaloon niñ ko war a dundale daanaka doy na sëkk sëkk sëkk ci defar ci defar nit ñi ci boppam waaye ndeysaan jàkk yu bëree bëri daal daal dundut daal jàkk yu bëri daal dañoo dundut léeg-léeg imaam ji du doon ab jànkat wala bu doonee ab jànkat itam lu ci bëree bëri maanaa du faral di jëfandikoo njàngam moomu ci delloo nit ñi ci suñu borom subhaanahu wa taala te delloo nit ñi ci suñu borom yàlla la ci gën a gaaw mooy alquranul karim di leen ko leeralal ak sunna si yonante bi sallallahu alayhi wasallam jàkke yonte yàlla muhammad jee nekk madina day moom loola moom alhamdulilah gàcce ngaalaama saa boo ñëwee da ngay gis ay woroomi xam-xam yu bëree bëree bëri ci biir jàkka ji ñee di jàngale alqiraat ñee di jàngale alfiq ñee di jàngale xadis maanaam daanaka biir jàkka ji boo fi duggee loo soxla ci xeetu fànni lislaam yi rek da nga gis koo koy jàngale da ngay da boo duggee rek fekk ay ay ay ay ay banc ay toogu yoo xam ne dañ ko faa def ci biir jàkka ji ngir lan woroom xam-xam yooyu ndax néegi suñu boroom yàlla yooyu itam gannaaw nga xam ne jaami yàlla yi ñoo fay ñëw kon war naa am ay woroomi xam-xam yoo xam ne ñoo leen di leeral lan la yàlla saa borom bëgg nit ñëw na ci jàkka ji julli ba àggal diglu ab bind jële ca defaru jikko defaroo ca far benn yoon pas-pasam baaxe ca ay jikkoom baaxe ca waaye jàkka joo xam ne da ngay julli rek daal dem wala sax bu ñu jullee ba àggal daal koy tëj kenn du fa leeral lu jëm ci alquranul karim kenn du fa leeral lu jëm ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàkka ju mel noonu nit ñi mën nañ faa julli ay juróom fukki at sax waaye daanaka yow ba nga fa njëkkee dugg ba ba nga fa mujjee dugg daanaka ñoo bokk ci wu at amul benn bind boobu mos a jàngi mosu fa jàngi benn bind loolu tam lu doy waral suñu borom subhanahu wa taala nee na yusabbahu lahu fiha moom laa jàng léegi loolu la ibnu amir di jàng shu'ba an asim itam loolu lay jàng mooy yusabbahu lahu fiha mooy dee dee dees dees na ko sàbbaal moom yàlla ci biir néeg yooyu mooy ci biir jàkka yooyu su ko defee fa'il ba dañ koo xadaf waaye rijaal biñ tudd dégg nga ma moo koy leeral day mel ne da nga naan man yusabbihu lahu fiha kan moo ko fay sàbbaal ñu daal di tontu naan ne mooy rijaal mi ngi mel ne li yubka yazidun daariun li xusumatin jooju waykat ba wax li yubka yazidun maanaam mel ne da nga ne ma yëpp kii mu ne ñu ne la daariun li xusumatin yusabbaxu lahu fiiha dañ koy sàbbaal moom yàlla ci biir néegam yooyu bil guduwi wal asal maanaam ñaari waxtu yooyu mooy suba alxuduwaat ak lan al asaal mooy tekkusaani suuf dañ ko fay jullil moom suñu borom yàlla julli yoo xam ne ca suba ga lañ koy julli muy julli suba dugg na ci biir di ko fa jullil tam julli goo xam ne ci waxtu takkusaan maana takkusaani suuf foofa julli takkusaan moo fa nekk al asal ñaari julli yooyu ibnu jarir at-tabari nee na mooy ñaari julli yi njëkk a farataal wahuma awwalu ma aftarada allahu min as-salaa loolu moo tax ñu tudd leen ak itam nag dañoo gànjaru lool te dañoo rëy lool ay tiyaaba mooy julli takkusaan ak julli suba waaye al asal sax daanaka mën ngaa dugalaale tusbaar takkusaan timis wala nga ne takkusaan timis ba dugg loole baatu asal da ko yóbbaale yusabbihu lahu fiha bil ghudu wal asal wala nga jàng yusabbihu lahu yusabbihu lahu mooy dana ko sàbbaal moom yàlla fiha ci néeg yooyu bil ghudu yi ci waxtu yu suba yi wal asal ak waxtu yi takkusaan yi rijaal ñoo ñoo ko fay sàbbaal mooy faayal ci suba ba ki jàng nag yusabbihu moom faaw du mën a du mën a du mën a taxaw ci wal asal ma ngay taxaw ci rijaal ndax mooy faayal ci suba ba ki jàng yu sabbaxu mën naa taxaw ci bil ghudu wal asal rijaalun ay góor ay góor goo ñoo xam ne ak rujulatu ay góor dëgg sax lañu ñi yàlla sa borom di faral di tudd ci alxuraan ay rijaal dëgg-dëgg ay góor mu ñooña dëgg-dëgg nag ñooy ay góor minal mu'minina rijaal léeg-léeg yàlla wax rijaal ñu ñoo xam ne yàlla dañu tudd ay rijaal maanaa góor ñoo xam ne dëgg-dëggi góor li mu laaj dañ koy taxawee mooy li yàlla sa borom bëgg ci ab jaam rijaal boobu donte ma fuumu laqab la nga xam ne day mel ne kenn waru koo ne itibaar waaye borom adwaalu bayaan nee na aha kay nañ ko jàppe muy ma fuumu sifa loolu moo tax an nisaa dañuy génn nisaa dañuy génn ñoom julee ci seeni kër dégg nga ma moo gën ci ñoom ñuy julee ci biir jàkka ya donte nag ñoom mën nañoo julee ca jàkka ya su fekkee ne maanaam matal nañ sart yi nga xam ne moom la lislaam di sart ci ñoom lu mel ne bu ñuy dem ca jàkka ja bañ a laal gët lu mel ne bañ a sol yére yoo xam dafa rafet lool dégg nga ma ak yu mel noona yonte yàlla Muhammad nee na koo xam ne soxnaam da ko tàggu ngir bëgg a dem ca jàkka ja bu mu ko tere laa tamna'u ima allahi masajid allah mooy soxna sa nga xam ne daa am jubluwaay julee ca jàkka ja te it nam war a mel ci ni lislaam di bëgg ci jigéen mu mel ko buy julli jàkka ja mel na nu mel no mel na noona jigéen ñi daanañ julli ci jàkka yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye dañ daan gaaw a génn nag bu ñuy génn daanaka kenn duñ xàmmee waaw dañuy mel nañ war a mel ci col gi nga xam ne moom la lislaam bëgg ci jigéen bañ a laal gët ak yu mel noona borom bi subhanahu wa taala nee na rijaalun ay góor yoo xam ne laatul hiihim du leen fàbbi du leen fàbbi tijaara am yaxantu am yaxantu wala bayun am njaay itam du leen du leen fàbbi an dikrillaahi ci tudd yàlla ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy mën a taxawe dëgg-dëgg la nga xam ne moo tax yàlla santaane ñu yëkkati jàkka yi ñoo mën a taxawe dëgg-dëgg la tax yàlla santaane ñu tabax jàkka yi mooy ay rijaal yoo xam ne ña nga ca jabade ña ngay jaay waaye buñ déggee dégg nga ma ak noddu dañuy daal di seppi seen loxo ci àddina ndax allahu akbar ji ñu dégg dañoo déggaale maanaama mooy yàlla gën a rëy lépp moo gën a màgg lépp kon njaay mi màggatut rëyatut njaay mi du rëyatu ci seen xol su boobaa dañ fay daal di bàyyi boutique ya tëj dem ca jàkke ya loolu nag buñ ko xooloon ci suñ jamono ji ñu dem marché boo njëkk dem rek du ma tudd benn marché léegi nga xool laay ji ci marché ba bu ñu noddee ndax waa marché bi dañuy tëj seen jàkka seen boutique yi dem ca jàkka ja dem julli ji ci bëree bëri du demee noonu yàlla ñam doon tagg muy saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom nii lañ meloon moo tax kenn ca salafu saalim mas naa dugg ci ab ja gannaaw bi ñu noddee ba àggal mu gis daara yënguwul ñépp dem na ca jàkka ja mu daan ne ñii la yàlla yox rijaalul laa tulhihim tijaara wala bayun an dikrillah madina gee day moom alhamdulillah madina gee boo fa demee day moom wax dëgg yàlla noonu la tëddi bu ñu noddee boo deful ndànk sax doo boo boo te jàkka yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam rëy na rëyaay boo xam ne maanaam bu ñu noddee bu bu la bu la yàlla dimbali nga teel a dem boo moytuwul boo sàpp su jóg sa dof dof mën a ki moom dafa lislaami lool moom dëkk boobu lool lool lool lool booy dugg rek yëg ne maanaam fi mu toll yaa ngi ci jaww yu bokkut ak ja nga xamoon te ab dëkk bu fekkee ne dañ koo lislaameel maanaa dugg ci biir jàkka ji moom tam lislaam gën a faa feeñ ñay jàngale toog fële ñay waar nit ña nekk fële loola dund koo nga fay dund rek dafa am lu muy def ci yow su fekkoon ne jàkka yi nekk ci biir réewi julli yépp noonu la bindoo su boobaa kon lu bari ci li ñuy jàmbat rawat na ay jikko yu baaxul yépp day wàññeeku lool lool lool ndax rawat na di dem ci jàkka suba ngoon dem ci jàkk suba ngoon néegub yàlla nga fay dem néegub yàlla dama leen di wax ne leen dafa rëy rëy gur magee magee magee magee maanaam jàkk ci ba mu rëy rek te ñu bari bu ñu dugg jàkk sax duñ ci am yëg-yëg wallahi kuy dugg jàkk ne da ngaa waroon a teewle ne yaa ngi dugg ci néegub suñu borom yàlla yaa ngi dugg ci néegub yàlla mu neex fi yow nga tug nga nga nga nga ànd ak teggin ya nga xam ne moom la jàkk laaj xoolal néeg boo xam ne booy dem jéega boo seqi benn bi day yëkkati ay daraja benn bi di far ay ñaawteef soo duggee ci jàkka ji itam malaaka yi tam laan allahumma axfir lahu allahumma arhamu allahumma axfir lahu allahumma arhamu yàlla yàlla nga ko jégal yàlla yàlla nga ko yërëm loolu la ñuy wax de li feeg yaa ngi xaar julli yaa ngi ci biir julli waaye jàkka moom dëgg-dëgg nag waris na cee waxtaanaat ndax julli ñi gën koo bàyyi xel gën koo jox gëdd suñu borom yàlla nee na góor ñi nga xam ne am yaxantu du dox seen digganteeg tudd yàlla xam nga yaxantu daa bindoo noo xam ne léeg-léeg mën na laa fàbbi ndax wutum alal la moo tax te yàlla mi ngi wax ci suratul suratul munafiqun yaa ayuha alladina amanu laa tulhikum amwalukum wala awlaadukum an dikrillah yéen ñi gëm yàlla na ngeen moytu seen alal yi di leen fàbbi wala seen doom yi di leen fàbbi ci tudd yàlla tudd yàlla yàlla dafa bëggut ngay fàbbeeku ba doo ko tudd boo nekkee ci jabi nag sa xel nekk ci suñu borom yàlla nga di ko fàttali ko da lay dimbalee ba ni ngay jëflanteeg mbooloo mi sax ak doomu aadama yi ñëw ci yow sax day sell ndaxte yaa ngi fett yaa ngi fàttali ko suñu borom yàlla yaa ngi koy tudd ci sa làmmiñ waaye yaa ngi koy yaa ngi koy teewlu ci sa xol itam noonu an dikri laa kon mën nga wax tudd yàlla ndax jay yi muy marsa yi li ci bëree bëri bëri ña fay nekk dañuy sàggan du ñu faral di tudd yàlla suñu borom subhanahu wa taala wa iqaami salaa noonu itam du dox seen digganteeg taxawal julli wa itaa izaka ak joxe azaka waaye dëgg-dëgg nag mbir maa ngi nii maanaam lana tax rijaal yi yàlla wax fii lana tax maanaam am yaxantu lana tax am njaay mënta dox seen digganteeg tudd yàlla lan moo tax am njaay mënta dox seen digganteeg taxawal julli ak joxe azaka mooy yaxaafuuna dañuy ay jullit yoo xam ne dañoo ragal yow man ab bis bu nekk ci seen kanam boo xam ne bu agsee tataqallabu fiihi alqulubu wal absaar bi maanaam xol yéppay wëlbatiku maanaam gis yéppay wëlbatiku waroom xam-xam yi nee ñu tataqallabu fiihi alqulubu wal ab fiihi alqulubu ji li ñu sama borom yàlla jublu mooy xol yi dañuy ju juge seeni seeni warab maanaam dañuy juge ci seeni warab maanaam dañuy dañuy dañuy jug te juge nañ foofu waaye tam te itam duñ duñ duñ duñ génn wa andirhum yowma al azifa id al qulubu la dal xanaajiri kaadimin xol boo xam ne boroom daa tiit ba xol ba jug juge na fam fam fa koy saa borom yàlla saxaloon juge na fa te génn gut nga xam ne wa afidatum hawa ña ngay ragal bis boo xam ne bu ak see xol yépp noonu lay bindoo ku fi toog naan naan saab xol bukk ci kon al xulubu kii kon danga ne indil dalil bi wane sa xol génn ci xulub yi xol yépp la yàlla wax bis pénc ci suñu borom yàlla ne xol yépp dañuy wëlbatiku wal abu saaru itam mooy daanaka doo sab gis fu ne danga fa da da da nga fa da nga fa xiin xiin yi ndax xamoo xamoo téere bi lay ñëwal ci gan wet la lay ñëwale benn mu ñëwalee wetu ndijoor wala mu ñëwalee ci wetu càmmoñ bu la ñëwalee ci wetu ndijoor nga texe yàlla ñu yàlla sama borom boole ca ñooña bu la ñëwalee ci wetu càmmoñ da ngay texee di te yow loolu wóor na la te kii di jotu ko moom nga ne fu ne ngay xiin xiin loolu nag dëgg la doo gental àddina di bañ a dem ca marché ba. waaye boo demee ca marché ba itam te fekk sa xol ba lu mel nii moo ca nekk du dox sa digganteeg la la lay tax nga mucc foofa kat nag léegi nag mu des ña dem ca marché ba te nga xam ne ñoom régaluñ lii ñooña kay kay duñ taxawal julli ñooña kay duñ tudd yàlla ñooña kay ay joxe asaka jabi li fi nekk ci ay ay alal yoo xam ne bu ñu ko doon génne asaka di ko teg ci aw yoon daanaka kenn koy gis koy muy laaj koy laaj do lu gën a sonle laaj laaj lan moo ko gën a sonle su fekkoon ne jullit ñi li ñu war a génne ci asaka ñu ngi koy génne ci asaka kon yow da ngay dem fa ñuy joxe asaka ñu jox la te doo xam ku la ko jox danga naan rek yàllaa ma ko jox ki la koy jox sax du doon koo xam ne da nga koy gis bay am ci moom kersa yu ci ajee ba du ci aju waaye daa fekk ni ñu war a dundee dëgg-dëgg nag ah turu lislaam moom mi ngi fi naam waaye boo xoolee lubb bi dëggantaan ni alxuraan di jàngale moom da ngay den des na lu baree bari moom des na lu baree bari jabi saxaaba yi bañ fa daan nekk buñ masaana noddu doo gisati picc ci jabi ñéppay dem ñéppay dem ci jàkka ji suñu borom subhaanahu wa taala nee na lii ñuy def ñoom dañ koy def li yajziyahumullah ngir suñu borom yàlla fay leen ahsana ma amilu la gën a rafet ca la nga xam ne moom lañ doon jëf bi ñu nekk fii ci àddina su borom nag li gën a rafet ca lañ doon jëf rek la tudd waaye seeni sayyi'aat tudd ko ndaxte bu fekkee ne ñoom dañoo bokk ci almu'minuuna haqqan borom bi ne woon na in tajtanibu kabaa'ira maa tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'aatikum wa yaziidahum dana dolli leen min fadlihi ngëneelam mooy benn bu baax bu ñu def bu nekk mu fayee leen ku fukk wala nga xam ne bu leen fayee ahsana maa amilu ba noppi wëlbati ko day ñëwaat ak ngëneelul boppam yokkal leen ca dolli leen wallahu yarzuqu man yashaau bi geyri xisaab borom bi mooy wërsëgal ku ko soob ci lu dul xisaab maanaam bila muhaasaba du toppanteeg kooka ca lam koy jox naan ko lii nii déedéet da koy jox rek wallahu yarzuqu man yashaau bi geyri xisaab fii day wax dëgg yàlla ku ko xoolaat xoolaat ko da nga am loo gis waaye itam dana am loo gis ñaari da nga am loo gis yu bokkul la nag da nga gis ne marché bi wala jabi ña fa nekk wax dëgg yàlla danañu dégg noddu danañu dégg noddu waaye nag dem di wuy ji tëj seen boutique yi moom li ci bëree bëri du am waaye boo gisee ña nga xam ne yàllaa nga leen di tagg fii nii te di leen tagge lu mel nii da nga ci yége ne kon ñoo xam ne dañoo mel ne ñooña te defuñu nu mel ne ñooña lañ doon def kon aw ŋàññ lañuy am ndax ku amutu tagg rek aw ŋàññ ku amul aw tagg ci yàlla rek aw ŋàññ nga am te yàlla moom ñii muy tagg fii moom am yaxantu mooy di xaar tijaara yenn mu fasuru ne ne ñu mooy maa yujlabu ila suuqi mooy li ñuy importe di ko indi bay on nag mooy ñi nga xam ne ñu almuqiimoon lañ nga xam ne ñoom ñu ngi ci biir marché bi am na ñu teqale diggante tijaara ak bayu ci anam googu nga xam ne tey marché bi ci boppam ay jullit ñoo fa nekk ñoo yoo xam ne dañoo ragal bis penc yàlla ñàkk ragal bis penc ci boppam deli la ci moom deli la lu rëy la kallaa bal laa yaxaafuuna al axira yàlla nee na ñooñu oy ragaluñu al'axira kon di dund ci àddina ragaloo al'axira loolu musiba mu rëy la borom bi subhaanahu wa taala ba muy melal lil muttaqiina alladina yaxshawna rabbahum bilxaybi wa hum min alsaati mushfiquuna suratul anbiya wa laqad aataynaa muusa wa haaruna alfurqaana wa diyaan wa dikra lilmuttaqiina ñan ñooy almuttaquun alladina yaxshawna rabbahum bilxaybi wa hum min alsaati mushfiquuna mooma ji itéel wa hum min alsaati mushfiquuna boo demee ci suuratu shuura day wax ne yastaajilu biha alladina laa yuminuuna biha walladina aamanu mushfiquuna minha ñi gëm yàlla ñépp dañoo ragal bis penc ñàkk ragal bis penc moom ak jàpp ne lépp jàmm ju ne bay lay doon bokkut ci melo yi yàlla tagge ñi gëm yàlla bokkut ci yàlla melo yi muy tagge ñi ko ragal xanaa gisoo bis penc ñoo xam ne dañuy sant yàlla naan nun dey bi ñu nekk àddina cim tiit mu rëy la newoon inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin fii lañ ñëw fa suñu borom baaxee na fa manna allahu alayna wa waqaana adaba samum ak kee nga xam ne innahu kaana fi ahlihi masruran kooka daa alku kooka daa alku moo tax jullit bi moom faw faw faw xam nga ku toll ne suñu borom yàlla jël ay saar yu bëree bëri sëñ bi ubbee ko bis penc jox ko ay tur yoo xam ne yu ñànga ñàng la ay waaqi ak dégg nga ma alqaari ak dégg nga ma assaax ak dégg nga ma attaama yu ñàng yooyu yàlla sa borom ak moom ni mu yërëme jaam ñi ba noppi di leen wax lu mel noonu ba pare nga ne nga ne nga ne nemm rek mel la dara xiwut sëriñ bi loolu musiba la ah xanaa nit dong sax bu la doon tiitloo ci mbir naan la ah foofa day ñàng na de foofa day nanga ma tax mu wër la kii ku dëggu la xanaa nag da nga da nga tiit nag yàlla ñi yàlla tiitloo gi wi jubluwu ci lu may ngir nga bañ a laal ak mooy yàlla loolu dong la si jublu mooy nga góorgóorlu ci ak topp yàlla yàlla dafa bëgg ñëpp dem ajana wallahu yad'u ila daari salaam woote yàlla foofu la woote yàlla foofu la woote yàlla daa woo nit ñi ñuy wuy ji ko ca daaru salaam ah léegi nag mu wax la nag yoon wi ngay jaar ngir man dem daaru salaam ah waaye sëñ bi di dund mel ne daal lépp lijjantiku na te yow borom bi subhanahu wa taala man a wanu la kumpa am indahumul xayb fa hum yaktubuun yàlla sa borom dégg nga ma wanu la lenn luy wane ne mucc nga te fii ci àddina sax nag wax dëgg yàlla bu ñu doon sàkku menn mbir da nga koy sàkkoo nit ña nañ koy sàkkoondoo te léeg-léeg sa nga ànd ca gomti doo xam ba xam da nga ko amal doo ko am kon nag wax dëgg yàlla ah bu fekkee jaba nam war a mel melu ko itam mën naa am ña fa nekk dañoo doon ñoo xam ne ni yàlla melale ñii dañoo melut noona donte nag jaba ña fa nekk maanaam am na ci ñoo xam ne ña ngay taxawee wax dëgg yàlla seen wàlli julli ña ngay dem ca jàkka yi di julli dégg nga ma julli du la jox xañ wërsëg julli du la xañ wërsëg wa amur ahlaka bi salaati wastabir alayha la ci dog laa nasaluka rizqan nahnu narzuquka yow joxoo sa bopp wërsëg njaay mi donte client yi muy muy ñi lay jënde dañoo bëri taxut nga jàpp ne ñooñu ñoo lay jox di yàlla moo lay jox xanaa xamoon yàlla mooy xiir nit ñi ci sa place bi loolu xam naa jaaykat yi xam nañ ko yàlla mooy xiir nit dana romb place war lu mel ne la fa nekk sa place ba am na fa waaye mu day romb place ba ñëw ci sa place waaw yàlla mooy xiir nit ñi ci sa barab moo tax boo taxawee li la li la yàlla sa borom sant du la xañ dara ci wërsëg am na koo xam ne daa am ku mu doon waxaaleel suuf daa am ku mu doon wax waxaaleel suuf ñu dem ba nga xam ne daanaka xaw nañoo juboo ci kàddu mu déggug nodd daa nekk nga baal ma de man de nodd saa bu ma ko déggee damay julli ci jàkka ja waa ji mel na daa jomme ndax lam ko naroon fa ay million la da dafa yaakaaroon ne ay million moom wax dëgg yàlla bu fekkee nag ñu ngi mi ngi waaj a génn moom dangaa war a bàyyi lépp ba millions yi génn ba mat waaye kee fekk na xol bi maanaam daa rëy ci wetu yàlla ba nga xam ne moom ba mu déggee allahu akbar nangoo tut affaire bi wéy ah julli mel noonu la ñu soxla waay ah loolu sa fa neex lool yàlla moo la soxla ah millions yi neex na naam waaye yàlla moo la soxla gis nga kooka dane ko léegi moom dane moom far na génn ci yu mu benn yoon ndax gisut man kii dafa kii xaalis boo ci génn ngay dem waaye sa borom yàlla dimbalee kooka ba mu sëlmalee dégg nga ma ginnaaw bi daanaka dañoo double njëgga keneen a ñëw dub daanaka lam ca fay sax daa dub wa man yattaqillaaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min haysu laa yahtasib billaahi kuy jëflanteeg ndigali yàlla yi ca nam la ko sante da nga xam ne yàllaa ngi fi de waaw yàllaa ngi fi de yàllaa ngi fi ndax yàlla mii muy jëflanteeg waaye yàlla mi ngi fi man fa xamul loolu lu ma koy lu ma koy lu jar ma koy ma koy tawkiit sax laa xamul man afillaahi shak maanaam wujudullahi taala moom dafa leer nañ nañ nañ nañ ba jéggi dee sonn xoolal kii rek ni mu jëflanteeg waa ji rek dem bàyyi fa loola woon ba noppal ba dugg yàlla doublé waatal ko nga xam ne ñàkkul àddina ñàkkul àllaaxira mi ko sunu borom yàlla ñëw ci walladina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ñooñu yàlla ñu yàlla musal ci ñoom kafaru ñooñu yàlla benn yoon leen woo benn yoon yaa yow ladina kafaru mu gis nu gis mu ko jaxwaan ña lu bari moom benn yoon laa ko fi gis te xam naa ne booba itam lañ leen wax moom laa tax dëgg yow ma lañ leen wax waaw ñoom seen suñu borom yàlla ki wut seen mbir dara dara dara dara ay def ay baadoola lañ alladina kafaru ay baadoola lañ weddi yàlla moom moo di baadoola dëggantaan moom boo bu déggee boo dégg ña ko ab waaju baadoola dëgg dëgg dëgg mooy ko weddi yàlla kayfa takfuruuna billaah wa kuntum amwaata fa ahyaakum léeg-léeg ñu tuddee baadoola koo xam ne du baadoola sax baadoola dëggantaan mooy weddi ko weddi yàlla man ko weddi yàlla it wala yasu billahi taala nekk ci kaw suuf di dund dem ak a ñëw dégg nga ma di naan ci ndox mi dégg nga ma di noyyi ni mu war a noyyee ba noppi gëmul yàlla ah kooku waaye tam xanaa it leen ngay defaat itam mooy mooy mooy ngëm itam ngëm itam tawfiq dong la suñu borom mooy tawfiqal ah walakin allah xababa ilaykumul imaana wa zayyana xool xababa ilaykumul imaana ah waaw loo ci def kon gannaaw moo la ko bëggloo iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun ci topp fadla min allahi wa nicma yal nañu yàlla saxalal nga ne loolu ñi weddi yàlla ñooñu amaalum seen i jëf ka saraabin daa mel ne njonoox njonoox loo xam ne bii qiica daa nekk ci ay pàkk xiyaa jamu xaala mi ngi mel ne jaar jamu jiira pàkk mooy àll bu ne yàmbulang àll bu yaatoo yaatoo yaatu boo xam ne si dégg nga ma daa am li ñuy wax saraab mooy lu mel ne ndoxum jinne la ko wolof di wax nga xam ne ci digg na tàngoor wi ci jamonoy jamono dafay am jamono joo xam ne si booy dox nii da ngay am looy seen ci sa kanam mu mel ne am ndox léegi daanaka feeñ ci tëli yi sax maa ngi fàttaliku jamono ba ñuy nekk ca daara ja buñ dañ ko daan seen fu sore sore nga xam ne boo waxee naa daanaka li yàlla misaal fii da ngay daw ngir bëgg a caaki boo ñëwee ba ak doo ko doo gis waaw dañuy mel ñooñu ñi gëm yàlla ñi weddi yàlla suñu borom leen seen jëf yooyu tabax ay hôpitaux naan dañuy dimbale jirim yéeg dégg nga ma yu baree bari yu ñu def suñu borom yàlla nee na la ñooñu xaaral ma jox la niiral ci seen jëf yi ndax ñàkk gi ñàkk fondement ñàkk gu ñàkk ak lalu muy fondement ci seen jëf yi muy ngëm yàlla ñàkk gi ñu ko ñàkk. moo tax seen jëf yi day mel ne kasaraabin njënoox loo xam ne bi xii a daa nekk ci ay pàkk yax yaxsabuhu daf koy jort awam aanu ki mar day jortu njënoox loolu maa aan muy am ndox ki marul sax noonu la koy jort di waaye niral bi daa gën a leer ci ki mar ndax ki marut moom mais bu dee ba bu fekku dara tam du ko wàññi dara waaye ki mar moom bu dee bu fekku dara maanaam day day day sooy moo tax tax misaal misaal mu la yàlla bëgg a joxe ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla seeni jëf daa mel ne ñenoox loo xam ne daa nekk ci ay pàkk kii mar jortu ne ndox la mu wutali ko nag da ko wutali ndax la lay xam ne da ko wutali mooy xattaa ji mooy xatta ida jaahu bu ñëwee ba fan mooy mawdiu saraabi mooy barab boobee nga xam ne fa la gisoon saraab ba ndax saraab moom du dara moo tax xuuj yi dañ naan mi ngi dellu ci mawdiu saraab mooy fa nga xam ne fa la ja fa la doon gis saraab ba moom nee ba agsi foofa la may ji du seex fekku ko muy dara maanaam fekku fa dara teyit la ca ka doy waar mooy da da da da da ximir rek far yam yam ci boromam subhanahu wa taala maanaam rëkkil amanatul a nekk wa wajada allah inda borom bi fa wafaahu xisaabahu mbooleem loo xam ne luñ ko war a topp la borom bi maanaam topp ko ko ba mët sëkk waaw maanaam daal faw faaw xisaabu moom moom raglu na moom waaw moom maanaam moom moom amut lenn luñ ko kii luñ ko bàyyi moom fa wax faa yoo fi taw fi yam mooy ñu jox la ba mët sëkk maanaam yàlla da koo topp daal mët sëkk da koo topp ba ba ba yëfi sës waaw faw faaw xisaaba mu tekki ne wallaahu sariwul xisaab yàlla nag ku gaaw nu muy màndaxee la waaw loolu day yow mu naa koo xam ne doo boole dëgg dë deux fois dëgg deux fois deux amul ci mbirum yàlla yàlla bu fekkoon ne noonu la bëgg a doxee ci kaw nu bii kon loolu du sotti yowmal xiyam yowmal xiyam de man lépp daa fekk yàlla xam ko ba noppi ñu soog a ñëw dégg nga nga am nañ indi ay machine calcul ak xool li nga am ba nga demee Màkka julli ya nga fa julli woon ak yooyu yëpp nañ ko xool calcul la amul ci mbirum suñu borom yàlla xam na li nga am ba noppi ah kooku moo mën a xisaab jaam gi sëñ bi ah koo xam ne xam nga lépp laataa waa ji jëf sax xamoon nga xamoon nga ba xam na na jëfam déet ak bu jëfee nu mu koy jëfee su borom moom moom moom xam-xam bi dafa doy waar mi ngoog mi ngoog mi ngoog mi ngoog wa yattaqullaha wa yuallimukumullahu la ju doog wallahu bi kulli shay'in alim maanaam yàlla daa umpalewul dara yàlla dafa umpalewul dara wallahu sariwul xisaab moo tax bis penc moom maanaam saar yu guddi yi ci wax yépp daanaka mën nañoo wax ne as diggante su gàtt la ko yàlla tënk sóoratu naxli foofu daal laa dem fekk fa maanaam borom bi naan wa ma amru saati illa kalamhil basari fi mu ne li ñu doon wax ci bis penc yépp foofu la ko tënk fa far nañ ko tënk benn yoon ah wa ma amru saati illa kalamhil basari aw huwa aqrabu sax ah aw huwa aqrab da gis nga nag la mu tëj laaj inna allah ala kulli shay'in qadir ñu ko maanaam maanaam mbirum suñ borom yàlla gën naa gaaw sax xefe xet gën na ko gaaw wallahu sariul xisaab léegi lii misaal la ci ñi nga xam ne dañuy dund ci ak réer di jaamu yàlla ci ak réer wala ñuy jaamu yàlla ci ay biddaa ñoom dañuy dem ba pencum yàlla ma fa nga xamee ne wax dëgg yàlla fa lañ doon jàpp ne dañoo danañu war a fayeeku nag dañ leen am lu ñu war a jox nag neexal leen ko nag ca lañ doon def nag ndekete lañ doon def maanaam mook saraaba yam ah moom ñenoo xayam ndax wala dina kafaroo bul jàpp ne mooy ñi weddi yàlla nga xam ne dañ ko gëmul dëgg la ñooñu dugg nañ ci biir waaye ñi nga xam ne itam maanaam li yont yàlla Muhammad indi itam dañ caa jaamul yàlla it ñoom itam kafaru ndax boobu ndaxte ñaar rek fi am mooy ñu gëm loola di ko jëfe wala ñu ñàkk koo gëm rek waaw ku gëmut li yonent yàlla Muhammad indi di ci jaamu sa borom yàlla su boobaa mooy da nga koo da nga koo weddi rek ndax soo gëm soo ko we soo ko weddiwutoon ñaar a fi am mooy nga weddi ko wala nga ñàkk koo weddi ba nga ko weddiwut yaa ngi cay jaamu yàlla ba nga ko weddee jaamu woo ci yàlla ndax soo ko gëmoon da nga ci jaamu yàlla kon ñi nga xam dañuy dund ci ay biddaa ak ñi nga xam ne si dañuy dund ci ak réer ñooñu fa nga xamee ne fa la ñuy yaakaare ne danañ fa yeeku foofa waliyaasu billahi taala la ñuy fekk ne nekk tañ doon def lépp wa qadimna ila ma amilu min amal fa jaalnaahu habaan mansuura wala ñi nga xam ne sax xam nañ waaye dañoo topp seen bànneex lii may wax nag ibnu qayyim rahimahullahu taala moo koy wax mu ne ñi nga xam ne si yàlla daa joxe ñaar niiral nee na benn bi mi ngi ko joxe ci ñi nga xam ne ñoo réer ak ñi nga xam ne ñuy topp ay biddaa beneen bi mu joxe ko ñi nga xam ne moom xam nañ waaye nag bëgg a juboo ak nit ñi daa tax maanaam ñu bàyyi la nga xam ñooñu moroom nee na ñoom la yàlla misaal ci aw ko zulumaatin bii ñooñu dañoo nekk ci ay lëndëm wala nga joxe niiral ka zulumaat man ay lëndëm yoo xam ne daa nekk fii baxarin ci ak géej lujj yiin géej goo xam ne daa xóot lool lool géej gu xóot ci biir ay lëndëm yoo xam ne fu ñu nekk fii baxrin lu ji yiin maanaam géej gu xóot a xóot a xóot fa la lëndëm yooyu nekk yaxshaahu mawjun maanaam géej googu nga xam ne daa xóot lool li nga xam ne moo ko muur mooy aw duus wenn wenn duus a ñu noonu jëlal ko benn wenn duus yaxshaahu mawjun yaxshaahu mi ngi dellu ci baxaru yaxshaahu dana ko muur moom géej googu mawjun aw duus mu wenn duus a ngi noona min fawqihi mawjun maanaam duus woowu nga xam ne moo muur géej gi muy géej gu xóot googu amaat na weneen duus wu muuraat duus woowu maanaam mawjun min fawqihi ma ngay dellu yaxshaahu dana ko muur moom géej googu mawjun mooy mawju bu njëkk bi léegi nag min fawqihi mooy min fawqil mawji al awal mawjun weneen duus moo tiim maanaam duus bu njëkk wi min fawqihi nekkaat ci kaw duusu ñaareel woowu saxaabun ay niir niir yi xam nga day tax ay biddiw ak yépp kenn du day day lëndëm moo tax ndax niir yi dañuy làq asamaan si borom bi daal di gën a leer daan ne zulumaat ay lëndëm la yoo xam ne ba'duhaa fawqa ba'd laa ilaaha illallah maanaam ay lëndëm yoo subhaanallah lii de yàlla ci yàlla musal moom ah ah dafa ragal lëndëm damaa ragal na lëndëm torop torop torop torop ndax lëndëm daan dara dara dafa dunde moo tax waaw maanaam lëndëm yoo xam ne ba'duhaa fawqa ba'd daanaka dañoo tegaloo lëndëm goo xam ne borom bi ne ne ida axraja yadahu su génne woon loxoom nii lam yakad yaraha mooy du ko gis bul ne du ko xaw a gis du ko gis ngay wax maanaam bu génnee loxo bi du ko gis dafa lëndëme noo xam ne sii soo yëkkatee sa loxo nii sa loxo lim lay jege jege jege jege doo ko gis doo gis sa loxo bi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ma ngi fay leeral lëndëm yooyu xolub waa ji ni mu lëndëme tabu waa ji ni mu lëndëme bakkan waa ji ni mu lëndëme topp ko ay zulubaat yoo xam ne yu du jeex la nga xam ne moom naam xamoon na ak dëgg waaye nag da caa teg tànkam ba àgg foo xam ne mënatut a génn ba àgg foo xam ne mënalu mënatut a génn lëndëm yi dañ ko wër ci wet yépp sunu boroom subhaanahu wa taala nee na wa man lam yaj'alillaahu lahu nuura koo xam ne yàlla defalu ko ak leer ci biir lëndëm yu mel nii famaa lahu min nuurin waaw famaa lahu min nuur amul fenn fu mën a jëlee leer nakira fi siyaaqi nafi la mooy amul genn xeetu leer gu waa ji mën a am moo tax léeg-léeg nit di dund ci ay mbir yoo xam ne sii ay lëndëm yi dañ koy wëree ci ay anam yoo xam ne sii amul fenn fu mën a génn du mën a génn ci genn wet ndax ay lëndëm dañ ko wër ci wet yëpp yëpp yëpp lëndëm këriis nag yàlla nag man na ko baaxe moom woo moom waa joojee niital ko waaye bu ko yàlla niital fu muy jëleg leer wa man lam yaj'alillaahu lahu nuura fa maa lahu min nuur ku suñ borom yàlla joxut ak leer mënoo amuk leer mënoo ko am moo tax ak leer doon lu am solo bu ñu xoolee ñetti misaal yi yàlla joxe fii yépp misaal na ci ñetti xeeti doomi aadama yi am mooy almunamu alayhim ñi yàlla defal xéewal ñim jàngal ci faatiha te ñooñam ñoom la leeral ci masalu nuurihi ka mishkaatin fiha misbaax ba laay ja jeex ak ñi nga xam ne almaxduuba alayhim lañ ñi nga xam ne dañoo xam ba noppi lu teg seen tànk ak ñi nga xam ne dañoo dañoo réer dañoo bëgg a jëf ba noppi li ñu jëf xamuñu ko te loolu bi ngeen ko xooloon ci jullit ñi day bari lool lool lool xam nga lan nan nan la jullit mën a dundee yàlla yónni ci moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak muhammad ni moom ni ko yàlla matale ci jikko jeeg ci ci ci rafetaay baag ci taar baag lépp anbiyaaw yëpp mu mu mu mu mu féete leen kaw dégg nga ma mbindeef yàlla yëpp mu gën ci ah waaw sëñ bi xalaat ci rek ci lii ma lay wax ni yàlla naka lay yónnee muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc ci moom alxuraan ba mu jeex ci ab xolam la ko wàcc nga xam ne maanaam luy xeetu mbaax rek ci muhammad la nekk ba noppi yow muhammad xamoo nga loo wala nga xam ne aw tur doo nga ci xam wala ngay ngay jéem a lijjanti koy koy gën koy dendal muhammad daa am koy ku fi dendal fii ah mbindeef yàlla yépp amu ci kenn laa wax koo xam ne jege na ko moom dong la itam la yàlla saa borom teg ci suñ kanam dina ko royloo loolu nee naa la mbégte la war doon ci yow yàlla nee na la muhammad laa la roy loolu mbégte la ah xoolal muhammad fi mu toll ci wàllu daraja ci bind baag ya ci aju yépp sama borom yàlla teg ko ci sa kanam ne la moom laa la royloo kon da ngay xéntewoo sa kem kàttan lépp loo man mooy lépp looy jaamoo yàlla na nga fexe ba mu jógee ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi koy dénk sama bopp di ko dénk képp koo xam ne yaa ngi ci kaw suuf na nga fexe ba lépp looy jaamoo sa borom yàlla na bàyyi ko ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon noo ngi taxaw foofu insha allahu taala ba julleeg jàmm